mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek dinañu ànd ak yéen ci waajtaayu aj màkk gi ànd ak yéen ci aj màkk gi ànd ak yéen bu ñu dellusee ci màkk ku wax aj màkk Sénégal nag da ngay njëkk a xalaat délégation générale au pèlerinage à di kuréel gi nga xam ne président moom la teg ñu jëlee ko commissariat indi ko délégation ngir mën a yombal liggéey bi ci dem géeg dikk gi ci yoonu màkk délégation générale au pèlerinage nag dañ ko dénk docteur Aboubacar Sarr mu ànd ci ak ñaari délégués généraux adjoints di sëriñ Xaadim Silla nekk ku yàgg ci liggéey bi ku ko xam waaye it mu ànd ci ak euh, monsieur le maire Ousmane Ndoye mu nekk DGA moom tamit ci délégation bi liggéey bi nag fii buñ koy def boobu ba tey yéen a ngi gis ni ñi ngi doxal dafa am ñoom nu ñu organiser woo ci logistique bi ndaxte privé yi bu ñu liggéeyee ci seeni bureau état bi liggéey ci délégation bi bu ñu paree dañuy dajale lépp fii ci plateforme d'enregistrement des pèlerins sénégalais bi nekk fii ci angaaru Yoff ñu wéyal liggéey bi loole lépp nag dañuy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa délégation bi tàmbale ci ak ki nga xam ne moo di sëñ Xaadim la ñu bàyyi ko mu nuyoo rek laata ñuy dugg ci waxtaan wi mu leeral ñoom seen taxawaay fii naka la ak it liggéey bi nu mu fi demee sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu Eh, waaleykum salaam soxna Ourey ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen dalal jàmm di leen wax dal ci seen kër fii ci eh, plateforme bi muy hangar bi nga xam ne ci la ñuy defee liggéey bi nga xam ne moo aju ci enregistrement ak eh, ci aju yépp muy <coughs> taxawaay yi nga xam ne moom la ñuy jël lu jiitu pour waajal ñi nga xam ne ñooy dem Makka ñu mën a waajtaay waaj seen waajtaay yi nga xam ne moom la dem gi lépp <coughs> comme euh, ni ko xamee fii ci plateforme bi ni ñu ko xamee et euh, dafa nekk loo xam ne dafa séddale ko ci ñaari xaaj muy chapiteau bi nga xam ne mooy tànt bi ak fii nga xam ne moo di biir hangar bi euh, ci biir tànt bi xam nga at mu jot quota bi nga xam ne moom la ñu réservé au public bis bu nekk dañuy xool par rapport ak service yi nga xam ne ñooy liggéey ban capacité lañ am euh, ci war ko war a mën a jël ay nit ñoo xam ne dañu leen traité et ñu xool ne kon bis bu nekk ñaata la ñuy jël bu ñu seetee ñi ñuy jël ñi ñuy sélectionné nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci ta euh, chapiteau bi mm-hmm. ñoom ñooy sélectionné nombre bi nga xam ne moom la ñuy jël def leen ci ay liste di leen dugal euh, par groupe ñuy jaar def surki bi yëpp jaar ci fi nga xam ne mooy euh, CESU nga xam ne fi lañ leen joxe seen fiche après ñu def circuit bi yëpp parce que gisee unique la euh, tous les services yi nga xam ne yëpp ñooy intervenir ci aj ñoom ñëpp ñu ngi ci fii ba nit ki bu fi duggee bu génnee mën naa def formalité bi yëpp léegi nag suñu defee circuit ba jeexal ci la ñuy ñëw ci man en tant que superviseur général man maa leen di defal bordereau bi nga xam ne e, moo leen di permettre ñu dem banque pour dem werse ji e, muy liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla e, dañ ko harmoniser ci anam boo xam ne dañ li ñu ci gën a yitteel mooy transparence am ci biir liggéey bi parce que nombre liste liste bi nga xam ne moom la ñu sélectionné mooy nombre bi nga xam ne ñoom la ñuy defal ay bordereau yoo xam ne ñooy dem banque banque itam eh, ñoom itam pour transparence am bordereau yooyu ci la ñuy sukkandiku rapport bi ñuy def gise par gise gise benn bu nekk boo noppee da ngay wax man enregistré naa tey nangami nit ñu compter ñoom ñu compter say bordereau ba mu dëppoo ak loola mm-hmm. bu noppee ñu def benn rapport boo xam ne dañuy wax tey nangam la ñuy enregistré ñu comparé euh, euh, rapport ba bi ñu def ak man li ma defal ay bordereau ak li nga xam ne moo nekk ca liste yëppale loolu moo ñuy permettre ñu xam est-ce que dépassement am na wala dépassement amut par rapport ak nombre bi ñu war a jël su loolu lépp jàllee nag ba rapport yi jàll ma ñëw jébbal ko délégué général ne ko tey lii mooy liggéeyu tey bi et bi ñu tàmbalee ba léegi gis ngeen ko waxtu wu nekk euh, mooy ñëw taxawee lépp bu ñu demee ba journée bi jeex danañu dajale ñun ñëpp pour ñu évaluer bisub tey bi situation bi ni mu demee lu ci am ci ay manquement wala ay faay ñu xeel fa mu amee ñu jël ay matuwaay pour euh, bu ëllëgee du am Eh, lu ci am ci ay avancement itam vraiment loola ñu xam ne sante ko sunu borom subhanahu wa taalaa loolu moom noonu ni lay demee eh, loolu moo tax itam <clears throat> gis nga eh, comme yéen ñoo bokk liggéey bi gis nga innovation bi nga xam ne moo am comme ren bi yàlla dogalee bu njëkk moomuñ amuñ woon sunu kër serfi la woon dañ daan luyee waaye depuis bi ñu amee sunu kër bopp nag te kër gi noog yéen bokk ko ca la ñu commencé nag di leen bàyyi xel nu ëpp na doon demee eh, ndax léegi sunu kër la moo waral gis nga ko ren ni mu demee eh, wut nañu barab boo xam ne tey eh, mën nañoo wax ne li jege lu mat ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ci village privé yëpp tey war a gunge seeni nit bu ñëwee mën nañ faa nekk ci bunt bi mais ñi nga xam ne itam am nañu badge anonyme muy regroupement yi itam nga xam ne dañuy dugg ci biir ñu am barab boo xam ne tey fa tabaarakallahu bu ñu ñëwee comme ni nga ko doon waxee keroog eh, danañ fi mën a dugg suturlu bu ñuy kuy verser sa xaalis da nga fa mën a dugg compter sa xaalis eh, mu am sécurité ak yooyu yëpp mu lekk loo xam ne innovation la boo xam ne eh, bu bu ñu bu ñu ko ren di ko sant sunu borom subhanahu wa taala kon loolu mooy li nga xam ne mooy mooy mooy li nga xam ne mooy li aju ci ci configuration li nga xam ne moo di plateforme bi ci ni mu demee yàlla dogal na service yëpp it ñu ngi fi wax dëgg yàlla eh, waxtu wu nekk it ñu ngi nemmeeku service benn bu ci nekk ndax yaa ngi taxaw ci say eh, eh, sa mission wala déet. loolu bokk na ci lu ñu ciy dimbale gannaaw boo xam ne man maa nekk superviseur général dañoo am coordinateur général muy colonel Mbaye Thiam waaye mu am adjoint boo xam ne mooy mooy mooy mooy mooy imaam Guèye imam Cheikh Guèye di ku yàgg ci liggéey bi. kooku moom la ñu dénk personnel bi nga xam ne ñoom la ñu recruter et ñu nekk ci biir di gunge pèlerin yi et di leen orienter et service bu nekk am na ñu ñu fa teg ñoo xam ne ñooy accompagner pèlerin bi et bu fa jógee ñoo koy joxañ fa mu war a dem ñooñu ñëppi nag nag dañoo am jëwriñ muy Cheikh Gueye moom moo leen di toppatoo di taxaw di xool ndax kenn ku ci nekk lañ la dénk yaa ngi koy def na mu waree wala déet E su fekkee ne e, defewoo ko noonu jubbanti ga ca war bu defee e, évaluation def ko muy loo xam ne mën nañoo wax ne loolu mooy lu lu am solo loo xam ne lu ci lu ci lu ci am kon noonu la demee man maa nekk superviseur général mm-hmm. colonel Mbaye Thiam nekk coordinateur ki di sëñ Cheikh Gueye nekk coordinateur adjoint ñun ñëpp nag ñu nekk ci kilifteefu le délégué général bi nga xam ne mën nañoo xam ne mooy sax général bi nga xam ne mooy mooy taxaw liggéey bépp kuréel yi ci des yëpp itam wax dëgg yàlla ñu am maanaam harmoniser nañ ko ba nga xam ne kenn ku ci nekk rek euh, xam nga fi nga tàmbalee ak fi sa morom yam donc euh, mu ngi noonu xam na bu baax li muy wax ndaxte yàgg na jiite plateforme bi waaye gis na it amélioration ni mu ko waxee yi am atum ren effectivement ku ñëw di nga gis ni euh, ren bërëb bi yokk nañ ko professionnaliser waaye it yokk nañ ko yaatal ba ñi nga xam ne ñoo di organisateur privé yi gis ci seen bopp am seen bërëb boo xam ne fa la ñuy liggéeyee waaye li ñu gën a remarqué it mooy dañoo remarqué ni équipe bu délégation bi yëpp dañ leen fiy sentir suba solo parce que nit bu ñu la dénkee dara nga ñëw toog eh, di xool bu dara doxut comme ni mu ko waxee nga joyanti ko ci saa si dafay am solo parce que fii ñëppay ñëw ñi bëgg a dem ñëppay ñëw donc ku nekk aussi ak réalité yi nga xam ni moom la fiy fekk donc euh, délégué si la expliqué nañu parcours bi nga xam ne pèlerin bi dem si état bi moom lay def wax na ni boo ñëwee da ngay def li nga xam ni moo di circuit bi rang ci chapiteau bi ñu dugal la nga jël dem affaire étrangère jël sa fiche boo paree dem si médecin bi dem ci euh, li nga xam ne moo di service d'hygiène boo amul passeport nga dem defari passeport vraiment yeneen structure waa carte d'identité boo ko amul nga dem defari ko jënd sa quittance si ci impôt et def li nga war a def yëpp boo paree nga ñëw ci moom mi nga mu bindal la sa fiche de paiement nga dem ci banque bi nga verser foofu sa xaalis loolu mooy 1860 pèlerins wu état bi hmm. ñoom seen circuit noonu lay demee yeneen 12000 pèlerins wu privé yi ñoom tamit daanaka ñoo xaw a nuroo xëy na fay gi rek nga dul defee fii waaye circuit bi ngay def mooy yow booy ñëw da ngay indaale sa fiche bu jógee ci agence bi nga xam ne fa nga inscrire boo ñëwee ba egsi nga rang comme ni pèlerin wu état bi di rangee boo duggee it nga def circuit bi yëpp ba mu mat waaye yow boo defee sa visite médicale ba pare ba déposer sa passeport da ngay delluwaat ci agence ba nga bindu foofu ngay verser ji sa xaalis donc euh, vraiment délégué Khadim Sylla ñu ngi lay sant di la gërëm ci taxawaay bi di ñaan yàlla mu yàggal ko te mottali liggéey bi ba nga xam ni ni ñu ko tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahim yàlla di ñu dimbale nag bëñ ak làmmiñ ñoo nekk waaye yàllaa ngi ciy def sutura ba lépp lu nga xam ni xaw naa am gàllankoor automatiquement équipe bi dinañ taxaw redressé ko defaraat ko ba mu rafet loolu it day gën a yembal liggéey bi rek xanaa ñu wéer rek mbokk yi li nga xam ne moo di waxtaan bi lii yëpp nag boo leen gisee ñu koy def mooy dañoo bëgg yéen ñi toog di ñu seetaan fii ci leeral tv ak leeral point net ngeen xam circuit bi naka la bu dee da ngeen di waaj ngeen xam ne lii moo leen a xaar bu dee da ngeen a bëgg a waaj bu it ngeen xam ne nii ngeen koy defee bu ko defee boo leen ñëwee xam fi ngeen teg seen tànk ñu xamit niñ leen ciy gunge muy état di privé ñëpp ànd ci ndax ndamu Sénégal la rek ndaxte kat kenn dootul waxati ujaaju privé kenn dootul waxati ujaaju délégation ujaaju Sénégal bi la ñuy wax Sénégal nag bu ayee ñun Sénégal yëpp dañ ciy jàpp ba ay gi neex incha allah kon mbokk yi ñu wéyal waxtaan wi rek gën leen a xamale ak ñi nga xam ne ñoom ñooy administration bi pilote liggéey bi ci gannaaw bu ko defee ngeen gën a xamit logistique bi nga xam ni moom la ñuy déployer fii parce que délégué fii ñaata nit actuellement ngeen mobiliser pour liggéey bi fi mu toll nii. <coughs> waa xam nga euh, liggéey bi euh, pour ñi nga xam ne tey ñoom lañu ñu mobiliser war nañoo mat ay cinq personnes mhm. yoo xam ne waxtu wu nekk dañ leen a mobiliser pour rek ñuy gunge pèlerins yi tey duñu ñu ak ñoom ba ba ñuy embarqué bu ñu embarqué yi ba dem pare gis nga mbooloo ma nga xam ne ñoom lañu ñu moo tax na ci biir loolu soxna Aray waxan nga yóbbal bi dana am solo lool loo xam ne dañ koy dénk suñu bopp dénk ko suñu bokki pèlerin yëpp te loolu pèlerin yiy dem ci état ak yi dem ci privé yëpp lañ pèlerin sénégalais yëpp rek tey sëñ Xaadim si la dénkaane bi léegi ñu xam bay xel ci ne soxna Aray ak tarbiya la mm-hmm. boo xam ne ki ñuy invité mooy borom barke léegi la maye bi ak yooyu waaye kii sunu borom invité mooy borom barke bi nga xam ne soxna Orey lam am fa mu nekk ay nawleem amuñu ko ci wàllu dëkkuwaay waruwaay ak dund kooku la sunu borom di invité ne ko kaay fa mbaxana nekk benn ñu jàngal la ci ne lii la wuutale ak sa nawle yii indaale ko fi te booy demit doo ko yóbbaale loolu moo waral booy dugg ci kër yàlla googu ci biirul aad yi mboolem lu la distingué ak sa nawle yooyu ci ak col ak i daraja yépp foofu nga koy bàyyi bu dee yéen soxna yi seen or ak seeni eh, da eh, <laughs> seeni brodeek seeni col yépp nag nu nit sunuy sunuy sunuy ganilaak suñu yépp fa lañ koy bàyyi fa nga xam ne it fa la ñuy defee pas-pas bi di waaj amul benn place bu ñuy réservé naan lii kat buur yi ñoo fi defe seen waajtaay wala milliardaires yi wala xalif généraux yi walla kenn. amul buur amul baadoola amul ñëpp muy ca biirul ali boo duggee ci biir néegub yàlla bi nag buur bi day buy ñëw mën nañoo arrêté ñëpp cortège bi ñëw kenn bu jàll. mais boo xasee ba dugg nag ci néeg yàlla am ñëpp a yam amul ñii invité du roi lañ. amuñ ñii ay président lañ parce que néegub yàlla kon loolu lépp tarbiya la waaye nga jóge ti ca ñëw ca dëkkuwaay ya na orey sa néeg bu xasee jant soo ba tëdd des ku dul yow ak sa boroom kër sa boroom kër yi ku dul yow léegi nag nga war a am un mois boo xam ne da nga nekk ak lu gàtt gàtt sa ñeent wala juróomi naw la ci benn néeg bokk leen i aada bokku leen fu ngeen bàyyi ko mën naa foofu ngeen gise seeni i comportement bokkut seen culture bokkut seen nañ leen yare it bokkut yéen ñëpp ngeen fee war a daje ñu la nag fala rafasa wala fu sooxa wala jidaa la tëddëg la ca nekk lépp ci tëdd ñii dañuy xaran ñii di def leneen mais lépp tey nga war ko supporter léeg-léeg nit dugg ci biir bi yàgg fa lool doo mën a doo fëgg te bayiwu la xel doo xuloo doo werante lenn loo xam ne luy déranger nit doo ko def loolu lépp nag tarbiya la boo xam ne sunu borom subhanahu daf la koy jàngal ci biir aj gi ci nga mën a am tolérance mën a am muñ mën a xajoo ñëpp mën a xajoo lépp ngir nag boo dellu siwaatee bu dee fonctionnaire nga sa service ngir aj gi nag ñu xam ne def na ci yow dara ña nga bàyyoon ca service ba bu boo accee ba dellu si ñu war ne ah kii dee aj gi am na sëriñ bu mu ànd la parce que wa tasawutoo lañ wax waaye fa inna xëy na saa di taqwa booy ñibbisi booy dem man ngaa yóbbal bu nekk mën nga ko yóbbaale booy ñibbisi man ngaa am sëriñ bu nekk waaye sëriñ bi ëpp solo mooy mooy comportement boo xam ne boo ñëwee ñi nga bàyyi woon ca service ba bu ngeen dundee weer daañu ne ah kii nag di am na lu mu àndaale ci aj gi xoolal ni mu naqare woon deret xoolal ni mu ñàkkee woon tolérance woon xoole ni mu sensé woo ci comportement ni mu laabiire ni mu yaatoo moom day dafa tëjan buntam bu dee patron bi boo ko mosaa romb mais xoolal léegi yar bi mu am teggin ya ak ubbeeku gi loolu lañ bëgg boo dee kilifa diine noonu lañ bëgg nga doxale noonu ak ku mu a doon boo dee borom alal joo xam ne tey fatabaarakala da nga daan da nga daan tëbakat dal ak yooyu boo jógee ci ay yar dafa am tarbiya bu yara war def ci yow boo ñëwee gën a tabe gën a yaatu e ña nga xam ne say surga lañ ñoo doon liggéey nga gën leen a jox cër jot leen a jox wàcc waaye loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a jëlee ci aj waaye e waroo aji rek tarbiya boobu nga àgg e bu tëdd ba xawee kii nga yuuxu bu ñam wa xawee naaj ngay di wax problème mu lekk problème mu ndékki problème mu añ problème mu reer dëgg la lu mënta ñàkk la comme joxe nga sa xaalis waaye nag nga xam ne loolu yóbbu la jaamu yàlla la goo xam ne tarbiya bi ngay añ waxtu wu wuuteeg wa nga daan añ di aña lu wuute ak la nga daan añee loolu tarbiya la muñ gën nag mooy tax ñu xam ne yow mii kat aj gi am na ci ba tax na yóbbal boobu il faut nit ñi bàyyi ko ci xel xam ne aj tarbiya la boo xam ne tey coono la baaxoo coono boobu moom la ci sunu borom subhanahu bëgg ngir ngay dund lu wuute ak li nga baaxoo woon dund waaye bu noppee mu am lu mu bàyyi ci yow kon loolu daal mooy li nga xam ne ab yóbbal la boo xam ne tey moo bu alxuraan def wa tazawwadoo fa inna xayra zaadi taqwa mooy yóbbal boobu tey nga àndaale sëriñ ca eh, eh, booy dem waaye booy dem di yóbbul it nga yóbbaale préparer sa bopp ci booy dellu siwaatee mel na neen nu bokkut ak na nga meleen ci wàllu comportement ak ci wàllu taxawaay ci diine ji ak ci nit ñi yóbbal bi am na solo vraiment leer na te wax na ni it effectivement ragal yàlla ak it moom rek la ñuy dénk euh, nit ñi parce que nag ku yàlla tànn comme ni mu ko waxee ci sa ay biir biiri nawle tànn la ci sa ay biir i bokk def la ganam nga ñëw fekk si ko ca euh, bërëbam boobu boo ñëwee fi may wax ni amul buur amul baadoo la amul mag amul ndaw képp ku ñëw rek jaamug yàlla nga ganug yàlla nga bu la yàlla nag di ganale dana la defal test nag ndax dina xool yow ba xam yow mii méritoo nga diplôme ragal yàlla waaye méritoo nga ajjanaam ja muy joxe keroog ba nga pare ci aj gi loolu nag dafa war a ànd ak muñ dafa war a ànd ak góor góorlu ba nga xam ne lépp lu fay coono rek nga muñ xiif mun coono muñ tàngoor muñ xat-xat muñ pression ñi ngay dajeel nga góorgóorlu ba bañ leen a lor ci sa làmmiñ waaye bañ leen a lor ci sa jikko bañ leen a lorit ci sa nekkin góor góorlu ba lépp loo xam ne rek day wàññi sa yoolu ak nga moytu ko loolu nag eh, yal nañu si yàlla taxawu mu nekk yóbbal bu am solo boo xam ne dañ koy jox ujaa ji rawatina suñu mbokku jigéen ñi ñu xam ne rek néeg ba nga jóge moo dàq fuuf fa nga jëm lal ba nga wàcc moo gën a nooy fa ngay tëddi waaye nag dafa am loo xam ne daane fële te nekkut fii mooy suñu borom moo ne képp ku bëgg mu teral la keroog bésu arafaat boobu nga xam ne boo fa yendoo ba ngoon mu fóot la ba nga set ciy bàkkaar ci condition yi ci métit gi ci coono gi nga koy fekk si foofu la tànn loolu nag ku ko yàlla defal xéewal rek da nga koy xam di ko teew teewlu saa su ne di moytu loo mën di tudd yàlla loo mën di zikr loo mën di moytu sax yenn waxtaan yu bari yi nga xam ne mën na laa dugal ci ay wax yoo xam ne sa yoon nekku ci wala di la dugal ci loo xam ne mën naa wàññi sak yool yal nañu yàlla may dégg ak topp yàlla may ñu ñu joxe ko ci ni mu ware yàlla may ñu ñu dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm incha allah yóbbal bu am solo bi sëñ Xaadim si la joxe ci mën koo dégg bu baax a baax ak fépp foo mën a nekk ak fépp foo mën a demee rek nga xam ne ku ci nekk ci ñun yaay def sa démarche individuelle de foi mooy da nga war a góorgóorlu ba jaamu yàlla bi nga xam ne moom nga jóg pour jooxe ji farata boobu yàlla dimbal la si nga mottali ko waaye it nga góor góorlu ba lépp lu ñëw rek nga ne ci examen bi la lépp lu mu nu mu metti metti rek nga ne examen bi la lu mu gën a jafe-jafe rek nga ni examen bi la bu boobaa boo paree di nga daje ngërëmal suñu borom seen euh, ndénkaane Euh, yoonu Màkka tey nag ñu toog ak euh, ki yàlla dogal ni moom moo jiitee lépp lu jëm ci wàllu ak ci Sénégal di docteur Aboubacar Sarr di délégué général au pèlerinage à délégué général au pèlerinage à nag boo ko déggee mooy ki nga xam ni état du Sénégal moom la dénk lépp lu jëm ci wàllu waajtaayu aj gi doxalinu aj bi organisation aj bi ak conduite aj bi ci loxoom la ko yàlla teg tey jii nii jaarale ko ci président de la république boobu ba tey nag mu ñëw tàmbale liggéey bi am fu nga ko fekk am yéene am fu nga ko bëgg yóbbu waaye ñu bëgg ko dalal rek délégué général ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adja Ourey Thiam. délégué tey bu ñu nee yoonu màkk ñëw ci sa bureau tey jii nii boo ñu doon définiral yoonu màkk fii ñu ci toll nii tey ci mois de mai 2023 lan la fan lañ toll ci liggéey bi lan moo nekk suñu kanam ak it jéego yi ngeen ci jot a def lan la. Euh, d' abord asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Adja Houreye maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di rafetlu sa taxawaay ak sa jàppale euh, di nuyu waa leeral ñi nga xam ne ñoo fi ñëw tey ànd ak yow di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan encore di nuyu suñu mbokk ñi nga xam ne ñoom moo di privé yi ak équipe bi nga xam ne ñoom laa àndal. Euh, di la wax ne euh, tey jii euh, mun nañu wax ne ñu ngi sant yàlla sant yàlla gannaaw sant yàlla sant président de la république ci li nga xam ne defal na ko pèlerinage bi ak pèlerins yi ak délégation ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di privé yi lu si njëkk d'abord moom moo di place bi nga xam ne bërëb ngeen mi fekk si tey Euh, daanaka délégation moom moo ko moom ak lépp li nga xam ne lu jëm ci pèlerinage bi euh, ñu ngi ci ñu ngi ko ci sant di ko gërëm di ko ñaanal euh, beneen bi boole ci li nga xam ne moom moo di moom la defal encore délégation jëlee ko ci commissariat yóbbu ko ci délégation kooku ci ñu ngi ko ci sant di ko gërëm di ko si ñaanal beneen bi moo di ne billet yi nga xam ne moom la wax ne nañ ko wàññi ngir euh, pèlerin yi euh, euh, Sénégal yëpp mën a dem aji kooku tamit ñu ngi ko si gërëm di ko ñaanal beneen bi li nga xam ne moom la wax ci paquet ji bi comme ni nga ko gisee mu ni mu wàccee trois millions neuf cent cinquante mille ak yeneen yu bare yi nga xam ne mënuñu ko wax di ci wax ne loolu yëpp dafay nekk li nga xam ne daf ñuy gën a motiver daf ñuy gën a encore euh, encouragé ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu def euh, gën a encore euh, jox moyen yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee loolu yëpp yombalal nañu ba tey alhamdulilah liggéey bi dox na ni mu war a doxee ba yegg fi mu war a yegg ci ndimbal yàlla ak ci li nga xam ne moom laa wax ak jàppale bi nga xam ne moom nga ni si jàppale tey daanaka mun nañu wax ne état bi. Euh, feesal na ba tey privé yi tey ñoom tamit vraiment ñu ngi ci yoon te léegi ñu feesal euh, loolu yëpp euh, moo lay wane ne moo lay wane ne liggéey baa ngi dox te équipe bi nga xam ne moom laa moom laa nekkal ni ma ni nga xam ne noonu laa leen di séddale ku nekk dafa am lu ma ko jox ngir euh, liggéey bi yaatu euh, am na ñi nga xam ne ñoo yore communication am na ñi nga xam ne ñoo yore euh, hangar bi moom moo di ki nga xam ne moo doon wax léegi bu waa am ñu yore logistique bi am ñi nga xam ne encore ñoom ñoo yore ci lépp li nga xam ne religieux bi ak organisation bi daal lépp vraiment yàlla def na ci sutura te ku nekk ak ay nit yi nga xam ne dañu am compétence te jàppale nañ ma si liggéey bi bu baax vraiment liggéey bi mu ngi dox te actuellement mun nañu wax ne tey Euh, première jéego bi nga xam ne waroon nañ ko def euh, def nañ ko mu des ñaareelu jéego bi moo di jéggi fi dem màkkatal mu karrama waaw mooy état bu Dakar sant yàlla comme ni nga ko waxee daanaka liggéey bi yemb na. Mhm. Euh, ndaxte pèlerin bu defee formalité am def visite médicale am ñu enrôlé ko ne ko apte na. dara desul luul beneen jéego bi. Mhm. fi mu nekk nii yeneen jéego yi nga xam ne moo des ci suñu kanam. mooy mbirum avion bi ak mbirum dem bi. Mhm. loolu est-ce que mën nañ ci xam fan lañ ci toll. Euh, mbirum avion bi ak mbirum dem bi xam naa ne xam naa ne suñu premier vol dina nekk euh, le 14 euh, moom la ñuy départ incha allah yéen moom di ngeen di ngeen di ngeen ñu jiitu mun nañu wax ne vol yi tey defe naa démb barkaati démb ci ni ma déggee ci ki nga xam ne moom moo yor ci wàll vol yi nee na ma de moo ko wax nee na c'est la première fois Sénégal di feesal. di feesal vraiment bay sàkku yeneen vol pour ñu ñëw jàppale ko mu nekk li nga xam ne euh, loolu tamit vraiment sant yàlla la. mooy daal compagnie bi compagnie saoudienne bi ngeen jël. Hmm. li ngeen waxante ak moom. mat na mat na ngeen soxlawaat ba ñu ba ba dolli na. Hmm. loolu mu nekk li nga xam ne lu lu lu ñu war a sant la. Hmm. te di ci am euh, mbégte lool. ci loolu yëpp comme ni ma la ko waxee ci seen jàppale ak euh, jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di ànd ak man ak euh, waa compagnie bi vraiment mu nekk li nga xam ne euh, war nañ ci sant yàlla. léegi mën nga ñu wax. temps de séjour bi ngeen programme pour Arabie Saoudite ñaata la boo leen déparé le ak aussi ba naka ngeen gisee organisation bi foofu en terre saoudienne est-ce que même équipe bi mooy def wala dangeen ngeen amaat beneen équipe boo xam ni moom mooy def état bu Makka bi. Euh, laaj bu am solo la parce que bokk na si li nga xam ne président de la république wax na ko wax na nañu wàññi diire bi nga xam ne moom la pèlerin yi di def Sénégal moom lañ moom lañ def Arabie Saoudite ngir mu wàññi coono bi euh, ci loolu euh, yàlla def na diire bi nga xam ne moom la ñu bëgg a def Arabie Saoudite dina nekk ñaar fukki fan ak juróom benn vingt-six jours moom mooy li nga xam ne moom lañu fay am te vraiment équipe bi nga xam ne moom la ñu préparé Euh, équipe la bi nga xam ne bu dëgër bu bi nga xam ne bëgguñu ren euh, équipe bi nga xam ne dafay équipe buy équipe bi nga xam ne amul expérience dañu bëgg équipe bi nga xam ne vraiment liggéey moo ko tax a jóg. efficace waaw bu efficace liggéey moo ko tax a jóg beneen bi am nañu ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk Arabie Saoudite di communauté bi bu nekk foofu ak étudiants yi ñoom ñëpp encore dinañ dinañ si jël nombre bi nga xam ne encore dinañu jàpp jàppale pèlerins yi euh, beneen bi incha allah kooku bu ñu yeggee la bu ñu yeggee la am na yeneen yi nga xam ne préparer nañ ko te ren bu soobee yàlla bëgg nañu incha allah euh, bala ñu fi jóge pèlerin bi dina xam euh, fi muy wàcc hôtel bi muy wàcc ak ki muy dëkkal ak euh, numéro numéro chambre am ak yëpp bu so incha allah taala délégué ñëpp xam nañ ni yaa nekkoon consul général ca Arabie Saoudite avant ngay nekk ambassadeur ca Égypte. kon ñu njott ni ku xam réew mi foofu nga tey euh, lan nga ñu mën a wax loo xam ni nit ñi yaakaar bi ñu am ci yow ci ni xëy na lu bëri am nañ yaakaar ni ci yenn jafe-jafe yi di nga ci jàppale sénégalais yi ba mu mën a réglé wu foofu tey lan nga si mën a dalalee xelu nit ñi par rapport ak yow expérience bi nga fa am ak réseau bi nga fa am ak xamee li nga fa am waaw xam nga Euh, loolu duma ci mën a wax lu bare <laughs> waaw parce que xam nga ñu ma ko c'est la première fois euh, te encore bugguma dige euh, bugguma dige dama bëgg rek ñoom xam nañu xam nañu doon doon nañ ma fekk ci terrain bi foofu bu fekkee nag dem nañu ba jéggal jëm jébbal ma lenge bi kon dinaa jéem a def effort lu lu lu ëpp li nga xam ne moom laa daan def euh, bokk na ci euh, bëgguma ko woon wax waaye il faut que comme que laaj nga ma ko euh, danaa la ci wax bokk na ci li nga xam ne moom lañ doon jànkoonte ci wàllu problème restauration xam nga bu njëkk ba yi passé restauration bi dafa dafa doon am problème mais ren waaw mais ren nag incha allahu taala ci fi nga xam ne moom moo di Muna restauration bi fay bi fay am dama bëgg ay sénégalais gérer ko te encore dama sécuriser lépp te bu soobee yàlla li nga xam ne moo fa moo fa daan am dootu fa am euh, te ñi nga xam ne ñoom ñooy moo ñi nga xam ne ñoom laa si ñoom la ñu signal euh, dama leen wax ne danaa euh, danaa ay sénégalais yi nga xam ne ay professionnels lañ ci wàllu togg am seen lépp ñi nga xam ne trois ba quatre ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy superviser li nga xam ne moom moo di te encore ñi nga xam ne ñooy togg dina nekk dinañ nekk ay sénégalais. te loolu dafay nekk li nga xam ne euh, bëgg naa ko euh, mu nekk li nga xam ne euh, jàppale lay doon mu nekk li nga xam ne Euh, sénégalais yi soxla woon nañ ko c'est surtout toujours dañ ko doon jàmbat euh, loolu bokk na ci euh, yi ci des nag dama ko bëgg mu nekk surprise ba. <laughs> waaye waaye en attendant daal ñun ñu wax la ñun sénégalais yi la bëgg daal te yaakaar ko ci yow mooy ca mun naag Arafat nag ñu dimbale ba conditions yi gën a baax. gën a yemb nit ñi gën a nekk tamit ci conditions yu gën a baax. vraiment yu mucc ayib parce que coono gi bari na fa torop mm-hmm. te tamit nit ñi dañ ko doon jàmbat ci lu baree bare affaire lekk gi moom comme que saareen nga mm-hmm. moom ngay jëkk li jëm ci waaye fi mu nekk nii ñun caamee ni bu boobaa <laughs> rek ni wax dëgg nekk mm-hmm. yàlla ku xam màkk xam ni coono ga ca ëpp ca mun na ak arafat yooyu la woon da nga daan dem ba egg dëkkuwaay yi xat lool te nit ñi di fay lu cher euh, lekk gi it sant euh, saar lool te nit ñi tamit di fay lu cher waaye nag bi yoon am nañ ci yaakaar te loolu foog na maanaam mooy ndénkaane bi ëpp bi la privé yi ak sénégalais yi de manière générale jox ne la lii moom am nañ ci yaakaar ñu la ci ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yombal ah, ba mu mucc ayib waaye fi mu nekk nii délégué comme que yow la yàlla dogal nga jiite yëf yi ñu lay ñaanal yal na yàlla oyofal yan bi waaye ñu lay wax lan ngay dénku tey douze mille huit cent sénégalais yi nga xam ne yàlla dafa dogal président fas yéene leen a teg sa loxo ne leen yóbbul ma leen ci jàmm delloosil ma leen ci jàmm lan nga leen di dénk ba mission boobu ñu la dénk suñ borom mun la ko yombalal. waaw ah, euh, tiital nga ma sax ci euh, kàddu bi parce que dafa nekk responsabilité bu rëy euh, donte ñu ngi naan privé état mais ñëpp état lañ. ci état bi lañ bokk waa Sénégal la parce que Sénégal la ñëpp laa jiite te ñëpp laa war jàppale ñëpp laa war a contrôler ñëpp laa war a dimbale euh, ñëpp laa war a jéem ba coono yi nga xam ne moom lañ doon am mu wàññeeku euh, moo tax bëgg naa lu ma leen di njëkk dénk moom mooy nañ ñu jàppale moo xam privé bi moo xam état bi nañu jàppale beneen bi mooy pèlerin bi pèlerin bu nekk na nga xam ne Sénégal nga représenté image bu Sénégal moo fa war a feeñ dafa war a nekk image bu rafet Arabie Saoudite dafa organiser organiser wu surtout ci li nga xam ne dafa jëm ci ci ci wàllu aj bi am na fi nga xam ne fa la ñu war a fi ñu war a fu ñu la tëral euh, yoon bu ñu tëral ni fii la ñu war a jaar jaar fa fi lu ñu la wax ne fii fu ñu la wax ne fii waroo fi toog waroo fa toog suñ la waxee ne nii lañ la orienté na nga jëm si fi lañ fi ñu la orienté suñu organiser ci wàll surtout ci wàll jamra yee ci wàll yëpp lépp waxtu bi ñu la jox ne la nga war a dem war nga ko respecté dafa nekk li nga xam ne euh, lu am am solo beneen bi nañu déglu ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di jiite di wax di waaraate nañu xam li nga xam ne moom moo leen indi ñoom ko yore di leen déglu bu baax a baax a baax a baax lépp li nga xam ne dafa jëm ci seen farata. ak seen sun ak lépp tout ñu déglu ko xam ne loolu moo leen indi beneen bi euh, nañu wàññi jàmbat euh, bëri na li ñuy jàmbat te kuy dem ci jaamu yàlla waroo jàmbat sooy jàmbat yàlla ngay jàmbat nanga xam ne euh, délégation wax na ci léegi bi ngay génne sa kër yàlla daf la soxla yow nga soxla yërmande yàlla nga nekk ganu yàlla kon war ngaa xam ne euh, li nga xam ne moo sañ-sañ bi nga xam ne moom nga daan am ak sa kilifteef bi nga xam ne moom nga daan am da ko war a teg fii ba nga gannaaw bi nga so solee armal bi. yàlla yàlla xamul VIP lu la koy won mooy armal yi bu ñu koy sol doo xam ne kii buur la doo xam ne kii. Euh, baadoola la doo xam ne kii ku am alal la doo xam ne kii ku amul alal la kon loolu daf ñu koy won beneen bi Arafat boo fa taxawee ñëpp ñu ngi tàllal seen loxo yàlla ñu won ne ne yàlla dong moom mooy buur kon loolu nañ ci bàyyi xel nañu xam ne jaamu yàlla moo ñu yóbbu du VIP du noos du noflaay ay fan yu gàtt la ñu ngi sàkku yërmande yàlla suñu borom subhanahu wa taala comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ak bu yàlla nangu boroom amul payoor lu muy aljana te loolu la ñuy wut te mu ne képp ku aj waxoo ñaaw defoo ñaaw da ngay set ci say bàkkaar comme ni liir bu juddu léegi kon mu nekk li nga xam ne xéewal la ngëneel la nañ ci bàyyi xel bu baax loolu moom mooy li nga xam ne moom moo ñu yóbbu beneen bi nañuy dimbalante nañuy dimbalante yaa ngi nekk ci yoonu yàlla lépp loo def ci lu baax tiyaaba la dañuy dimbalante amante yërmande suñu biir euh, beneen bi li nga xam ne mooy ëpp ëpp ëpp solo na nga xam ne màkk tal mu karrama dëkk bu tedd la dafa am particularité bi nga xam ne yàlla defal na ko na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax yàlla daf ko fonk màggal ko kon màggal ko lépp loo fay def na nekk jaamu yàlla parce que lu tax jaamu yàlla boo fa def yàlla da koy fulandi benn julli boo julli biir màkk juróomi téeméeri julli lay compter ci tiyaaba dafa mel da ngay mel ni julli juróomi téeméeri julli wala wala euh, juróomi téeméeri julli la de cent mille hmm? téeméeri julli téeméeri téeméeri julli téeméeri junni te tey boo boo ko doon calculer tey bu fekkee julli nga fa tisbaar takkusaan timis gee juróomi julli yi boo ko doon julli ci sa dund. kon nañ ci bàyyi xel bu baax. te naka noonu tamit bépp bàkkaar boo fa def. ni koy ni ñuy fulande euh, fulande euh, kii euh, tiyaaba bi noonu lañ lañ koy noonu lañ koy fulande parce que yàlla moo ko wax yàlla nee na waxuma la sax def waaye boo ko bëggee def boo ko yéenee wa man yurid fihi bi ilhaadin bi zulmin nuziquhu min azabi na yàlla ne la boo bëggee rek def màkka lu bon rek boo ko bëggee rek yàlla neen dinaa la musal mbugal safara bu metti wa man yurid fihi bi ilhaadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim kon loolu lañ ci bàyyi xel bu baax euh, am na yu ñuy tàmm di wax naar yu bon yeeg wala nangam ak nangam yooyu nañ ko bàyyi waaw xaste beeg ak yooyu nañ ko bàyyi nañ ko moytu yooyu dafa yàq suñu aj parce que kàddu boo wax rek bu génnee rek bu fekkee lu baax la yiw la bu fekkee lu safaan ba la safaan ba lay doon kon nañ si bàyyi xel bu baax nañ si bàyyi xel bu baax jàppalanteeg ñi nga xam ne mooy suñu guide yi ak ñi nga xam ne ñoo ñu fa indi surtout euh, nit ki bu la jiitee moo xam délégué la moo xam keneen la moo xam ci privé bi la bokk bu la jiitee loo war a def danga ko war a ñaanal ñaanal ko. yal na koy yal na ko yàlla jàppale ba mu gide ma ma jaar mu am réussite ma jaar fi nga xam ne foofu la war a jaar sama aj nangu mais bu fekkee yaa ngi nit ki mu ngi mu ngi la jiite yaa ngi koy xas wala euh, yaa ngi koy xas wala yaa ngi yaa ngi koy rëbb wala bu boobaa kan ngay kan nga yàqal sa bopp nga yàqal kon nag nañu jàppalante xam ne jaamu yàlla moo ñu yóbbu bu fekkee déggoon nañu ànd ñaanalante yërëmante dimbalante suñu aj dina nekk aj bu yàlla nangu te loolu la ñuy soxla Euh, di ñaan yàlla di yal nañuy aj ci jàmm euh, def farata bi ci jàmm yàlla nangu ko te ñu dellu set wecc ci suñuy bàkkaar euh, ànd ak yiw ak xéewal bu bare encore bu ñu fàtte ñaanal suñu bopp ñaanal ñi réew mi jàmm am fi ndaxte jàmm seen lépp xaj bu jàmm amul dara du am bu jàmm amul aj sax du am gis nga sax looloo koy woon tey euh, li nga xam ne moom moo tey yëngatu say euh, Soudan bi mu amee gis nga tey bokkutuñ si at bi kenn amuñ yaakaar euh, dinañ dem ci at bi kon nag nañu góorlu sàmm suñu réew ñaanal ñi fi nekk ñaanal njiit yi ñaanal ñëpp ñaanal suñu bopp jàmm am fi ñun ñëpp ñu dugg si bokk si li nga xam ne moom moo di jàmm ji jàmm mooy lépp ci la lépp xaj kon yal nañ ko yàlla may yal na yàlla may Sénégal jàmm yal na yàlla may jiit yi jàmm yal na yàlla may pèlerins yeeg ñëpp jàmm ñu dem si jàmm ñibbisi si jàmm. jërëjëf euh, délégué jërëjëf délégué général au pèlerinage docteur Aboubacar Sarr tey moom ku ko dégg xam ni euh, borom xam-xam bi moo wax comme d'expérience ku xam màkk ku miin màkk waaye ku xam dayo euh, réew ma ñu jëm la parce que nag dafa am solo li may faral di wax rek fa ñu jëm néegu yàlla la bu yàlla doon joxe adresse am ci kaw suuf danaan la fekk si ma biir kaaba gi ku ne ni nga mu amee adresse suñu borom noonu la amee adresse ci kaw suuf kuy seeti kilifa gu mu mën a doon teggin ya nga war a yor booy seetu suñu borom dangaa war a yor lu ko ëpp donc nag yal ñu yàlla dimbali ba ñu sóor loolu xam ne dañuy jaamu ji yàlla te it ja matuta jaay suñu borom ndax ku ko am moo la ko xéewale am am matuta jaay suñu borom ku ko am ko xéewale mën-mën matuta jaay suñu borom ndax ku ko am moo la ko xéewale donc ñu sante yàlla xéewal gi muñ may ba ñu taxaw tey di waajal yoonu màkk waaye egg fa it ànd ak teewlu gii mën a tax nit ki mën a jooxe farataam ba mu mat waaye nag fekk du ci lor moroomam te du ci lor boppam ndaxte lor sa morom mooy def loo xam ne nit dana ci jëlee lu ko metti wala ak ngaañ waaye lor sa bopp mooy def loo xam ne amatoo fen foo koy dab dabalaatalee te li may faral di tooñee ñu bari ma ni leen bàyyi leen di wax ne naari dañoo bon hmm. wala ñu gàtt ñi dañoo def nii wala nañ ñëw rek puus wala wax sax am ñoo xam ne dañuy yëkkati ay kàddu saagaat yooyu yëpp di ko jëmale ci ñenn ñi te yow kooku amaana dootoo ko gisaat hmm. fi fi ak ilal abat pour di ko baalu àq hmm, donc nag yooyu yëpp nañ ko bàyyi xel yàlla na ñu yàlla dimbale ba ñu mën a dem ci bisimilah rahmaani rahim mottali ci alhamdulilahi rabbil alamina daraja eh, ragal yàlla boobu suñu boroom di ñu décerné mu sax ci ñun des ci ñun ba yàlla suñu boroom ñu daje seen ngërëmam jërëjëf eh, docteur Aboubacar Sarr bu baax jërëjëf eh, jërëjëf Adja Ourey sant ñi ñu doon seetaan ñëpp di wax ni ça a été un plaisir que mm-hmm. d'être avec le délégué général au pèlerinage mm-hmm. donc di leen joxaat yeneen ndaje ci yeneen euh, émission yoonu màkk nii rek lañ koy jàppoo incha allah ci édition 2023 bi mm-hmm. muy at bu spécial pour ñun ñu fas yéene ci ànd ak yéen fii ci leeral TV ak leeral euh, point net gunge leen wettali leen ànd ak yéen dem jàmm ñëw jàmm incha allah